di asal di di di di di envoyé appel ne tey gi ginnaaw si tey dootuñu nangoti ken ku ñew US di yàq même budul maire bi sax nangootuñu ku fi ñew di yàq kep ku fi ñewati di yàq dina ndal sa kaw ku mu meuna don nak parce que nanguwuñu ay wa keur massar ay wa jaxay ñew fi fi si US di nu yàqal sunu maire bi nga xamne ne suñuy dom seeni keuyit fi lañ ne ñun suñuy keuyit fi la ne dootuñu ko nangoti nak nun ñe bolo na nak nek ben kep ko xamanteni ni ñew nga fi ya kha tax la jog ak sàcca bu sobe yalla di nga gis lo xamanteni ni nii ko gis si maire bi suñu adina la suñu lepp la parce que suñu archive yu xalé yep mu ngi ci maire bi ñu ñu jeenca mais yalla defal nañ bi ñu jatul tal sa yene document yo xamna ni yu am solo la li nak dafa nek lo xamna ni nun way ouest jog nañ taxaw li dootuñu ko nangu lii lu ñu bett la ku xam Rufisque Ouest xam nañ ni Rufisque Ouest duñ nit ñuy dellu ginnaaw du ñu ñuy ragal lii nag lu ñu bett la ñu ngi marsawu dëkk bi di marsawu Sénégal di marsawu ñëpp parce que lii dafay ñaaw li affaire yu vandalisme la parce que lii gën a garaaw mooy ñu teg suñuy alal nit ñi di yàq nit ki kenn teraw la mars bu la neexee mën nga def sa mars bu la neexee mën nga def lu la neex mais yàq a ah, jël alali jàmbur yi loolu dakka na loolu dootuñu ko nangoote suñu maire bi suñu maire bi nag ñu lañ jël suñuy propre responsabilité ñun xaaratuñu si gendarmerie xaaratuñu si police ñun suñu maire ñu ñoo koy garral suñu bopp képp ku fi duggati nag di fi def nepp loo xam ne warul ñun dinañ taxaw fajal ko suñu bopp mbajam kanam nag borom moo koy fajal boppam ba sub dee du ba sub nun pare nañ pour joxe suñu bakkan pour sacrifier pour suñu dëkk bi